ci projet gouvernement bi fi gouvernement bi indi woon mu tudd Pader ñun ci lañu am saasu sunuy kayit dem ñu am solaire dañu am apport man sama mbir man juróom-ñeenti junni laa def apport ku ñu jokk lu man euh, juróom-ñeenti million ñu indi la loolu ci sa tool kooku moom bu la laajee cent mille sax si sul ci waxantuma la ak juróom-ñeenti junni yokkute ndax solaire bi mu ngi fekkoon mu ma am téeméeri saako tey bu fekkoon te ne tey téeméeri saaku laa doon am tey maa ngi am junni saaku wax dëgg yàlla man solaire moom nee naa leen képp ak bañ solaire jox ba amaat xaalis dama dem jëlaat sama ñeenti pon jëlaat sama appa ba kii bu ndaw bi ma yoroo ma jëlaat pompe bu mag boole ci ma am sama juróom-ñetti tabla ñett ñeenti tabla yi liggéey maa ko ñaq ci sama xaalis bopp boo xëyee nga nekk jaboot nga bëgg a démarché nga lijjante sa dépense léegi nga bëgg ci lijjanti loo jënd ñaar fukki litre yi gasoil yooyu indi tool ba day tool bi du dem kër gi du dem ci loolu la padel xool ñëw xool gëstu mu ne metti na deful weer mu indil nu solaire muy ñëw boobu ñetti néeg laa am ñetti néeg laa am tey Paden ci mbir liggéey biir Paden ci solaire bi amati naa juróomi néeg yoo xam ne ci Paden la jóge kon nit gàcc ngalaama Paden